bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum waa àdduna asalaamaaleykum mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen bu baax a baax di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di nuyu képp koo xamante ne kilifa nga rek ñu ngi lay fekk fa nga toog jox la suñu loxo sukk sa kanam di la nuyu di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow noonu la ñuy def dugg ci hôpital yi di ñaanal malaadi yàlla fëgg seen bopp mais di ñaanal ñi nga xam ne ñoo yor malade yàlla may leen jàmm te may leen xel mu dal noonu la ñuy def daagu ba ci prison yi rek ñaanal leen jàmm ci barke Seydina Mohamed di ñaan ñu delluwaat ci seen i njaboot ndax liberté dafa neex waaye du ñu fàtte suñu waay dawlo yi naa ñëpp ñaanal ñëpp di ñaan nuyu samay ñaari waajur di leen delloo njukkal bu baax a baax a baax ndax defe naa ne ginnaaw yàlla suñu borom lépp ñoom la waaye duma fàtte fi nga xamante ne nag fi laa toog nii muy leeral tv leeral point di ko commencé ci kaw ba ci suuf bàyyiwuma kenn maa ngi leen di ñaanal jàmm di ko sàkk ci ñoom bu baax a baax a baax ba noonu laay def rek ërbatu wëlbatiku ci ki nga xamante ne nii mooy Ndaya di ko a jàmm di la wax Ndaya nuyu naa la ziar la nuyu Sénégalais bi nuyu àddina wërngal këpp di ziar kilifa diine yi kilifa aada yi di dellu santaat yàlla bu baax bi mu ñu mayaatee tan ñu mën a toogaat fii di ko dolli sant bu baax di ñaan yàlla mu yokk ñu ñaan yàlla at mu bees bi ñu dugg nii yàlla na nekk atu xéwal atu naataange képp koo xamante ni amoon nga mbébét ci 2023 bi ñu génn muy jàqare ak tiis yàlla na ko yàlla suñu boroom saafara ci 2024 bi mu nekk atum jàmm atum naataange xéwal yi saawaan baawaan maa ngi kontaan teewaat fii ci plateau bi aada nuyu maam Marème di nuyu aussi suñu invité bi. technique bi di leeral affaire yi ba mu leer naa ñu njóobeen bu ñaaw boobu waaw maa ngi koy ziare bu baax a baax waaye kenn du nag suñu jarbaat bi Ablaye namm nañ ko bu baax ndax nee naa la euh, teraanga àdduna te kóllëre ginnaaw lay féete muy doonoon ku baax toog fii nag di ñu attaayaal di kaf di may ñu jàmm loolu di xale donte que amuñu moom benn kii mais jàmm jëmu ngi fi rek ba tax na fu ñu toll dañ koy bàyyi xel bu baax a baax Ablaye di la wax ne la foo mën a nekk rek jàmm ci yow waaye kenn du tonton Matar sama xarit maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar tonton Ngaari nag wéetal nga fii tey tey moom conférence bi doo ci bokk conférence bi tey jii di nga ko tardé de <laughs> mais foo mën a nekk rek ñu nga àndal foofu noonu murit tamit ñu ngi koy mi nga xam ne mooñ doon wéetali fii si xalam bi ñu ngi koy ziyaar bu baax a baax a baax di ziyaar rek nga xamante ne nag suñu gan la tey di ko nuyu di ko ñaanal jàmm muy tonton Dame nekk fii Louga nga xam ne mooy Ndam Espia tonton Dame nuyu nañ la ziyaar la di la dalal fii nga xam ne mooy Leral TV Leral point net ci émission émission aada ak cosaan. maa ngi leen di fay nuyoo yéen ñëpp di nuyu leen siyaare bu baax leen jox seen wàccuwaay soxna maam Marème maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu soxna Ndaya ziar naa ko bu baax a baax di ko nuyu waaye di nuyu Babacar aussi di nekk si caméra macha allah euh, di ko di ko def ba ni mu baaxee ñu ngi nuyu ñëpp euh, ñi ñuy seetaan maa ngi leen di siyaar bu baax waaye di nuyu euh, waa Leeral TV ñoom ñëpp ak Leeral point net ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen siyaar. Eh, di leen jaajëfal ba kat sa gën a kawee ba que si nekk suuf ñëpp ñëpp ngi leen di bégee di nuyu suñu autorité yi nekk fii si diwaanu Louga ak li ko wër yëpp ñu ngi leen di siyaare eh, di nuyu tum waa Ngidi la commune Ngidi la monsieur le maire Abdou Khadre Lo maa ngi koy nuyu bu baax di ko siyaare sama waa jooju ak eh, sama mag ji tam muy Arona Ngom di sama frère maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu waa Ndam SPA yëpp maa ngi leen di bégee bu baax a baax soxna Mame Reme merci beaucoup tonton Dame ci nuyoo bu am solo boobu képp koo nuyu rek jottalil ñu ko suñu nuyoo bu baax a baax a baax waa ngi di la am nañ fa ay mbokk ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare ku ci mel ni Raat Caam tamit mu nga ca rajo ba maa ngi koy nuyu bu baax a baax sama xarit la Raat muy ku gën ku riis ñaan lay ñaanal jàmm bu baax a baax a baax tonton Dame tey boo ñu doon wax tuuti ci leeral rek tey loo ñu mën a jàngatal ci leeral TV. waaw leeral TV teral boo xam ne bu parce que man dama koy seetaan ba tey rek seetaan naa ko je pense que dama koy jàpp sama kër si euh, euh, canal bi dama koy seetaan vraiment ci Babacar bi may wax loolu man ko man Leral TV dama koy seetaan parfois mhm. parce que na bokk na si télé yi nga xam ne dama que vraiment information yu am solo la ñuy joxe émission yu am solo tamit aussi nga fay seetaan mhm. te loolu la ñu soxla si askan bi aussi dañuy soxla euh, média yoo xam ne nii dañuy wan loo xam ne mën nañu jëriñ ëllëg mhm. soxla soxlawuñ ñoo xam ni dañuy jaxas sunum xel di lëjal su xel mais dañuy soxla soxla ñoo xam ni tey su ñu defee ba bàyyi rek dañuy xam ni ñuy am njàngal lu ñu lu ñu jàngal lañ ñu won te Leral TV soo si loolu la nekk macha allah sa kaw ca kanam euh, na nekk télé boo xam ne nii aussi àdduna euh, bi yëpp ko ñoo koy ñoo koy ràññee. masala na nekk télé boo xamante ne àdduna yëpp ñoo koy ràññee ba tax na nee naa la benn bëñ bëñ foo ko fekk day fonk te day weex ba tax na fii mooy leeral TV leeral point net nee naa leen ku sa yaay ayee ku ne doo jiiroo mais ku sa yaay ayee ku ne bu la neexee bu la neexee tardeel lu la neex def ba tax na ñun fii la ñu am muy leeral TV leeral point net bu baax bi télé bu gën bu wóor bu riche bi nee naa leen lu waaye di bëgg am rek waaw lu waaye bëgg a xam rek ñëwal fii boo fi ñëwee rek loo bëgg a xam rek incha rabbi di nga ko xam ci anam yoo xamante ne yu doy waar la yu neex yu baax tonton daa tey boo ñu doon wax li nga xamante ne nii mooy wujja tey lan ngeen ci mën a leeral. waaw loolu am solo la euh, thème bu am solo ngeen indi tey muy kuje d'ailleurs sax émission bi dafa wuy ji thème bi ndax bu ngeen nee aada ak cosaan ndax kuje mënoo koo wax te tuddoo aada cosaan parce que bu ñu defee benn xayma tuuti rek dellu gannaaw si suñu parents yi dañ leen a fekkoon ñuy wujje ñun lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy yéex a fekk leen sinu dund ñun ak ñoom mais xam nañ ñu ni euh, suñu parents yooyu dañ daan ujje mais nag kujje gu rafet nag aussi kujje goo xam ne dañuy xam ni yàlla suñu borom moo leen boole parfois sax da ngay dégg euh, benn slogan rek la ñu koy wax ñu ne kujje bokk wërsëg la du ngaa ngaayoo waaye dafa mel ni euh, la xewoon bu jëkk dafay bëgg a tumuranke te tumuranke googu doo xam sax lan moo ko waral d'ailleurs ñun maanaam fa ñu war a fa ñu war a royee ak ña ñu war a roy ñun dañ leen a dépassé parce que ñooñu boo waxee xam nga lañ lay lañ la ciy tegal dañ naan la ñooñu seen temps wéy na seen temps wéy na nag c'est-à-dire que ñoom ñun duñ bëgg a rey si ñoom lenn muy sama yaay ja ma jur wala sama bàjjan ba ma jur ba su ma sëyee bu ëllëgee xooluma si ñooñu damay xool si sama suwaa man lu ma bëgg a def moom moom lay def sama néegu sëy parfois xale yu si bëree bëri noonu la ñuy jéjee ka ku jéey bu demee ba ñu jël benn slogan defante demal nga defante ji wala say xarit ñoo lay influence demal nga defante ji dañuy defante bay defante si ni ñu doon seen kanam yeeg yooyu sax dañ koy defante parce que loolu moom moo am si ku jóg dañuy defante bay defante nan la ñuy defaroo. dañuy defante ba defante. sëñ bu wàccee nan lañ koy teeroo. ak mu nekk si loo xam ne tey. Mhm. loolu moo am si. dëkk bi. Mhm. tey boo jëloon cent pour cent quatre-vingt-dix pour cent yëpp si jigéen ñi noonu la ñuy dund. mais du jigéen ñi dong nag mhm. xam naa dañ ci gën a yaatal mhm. parce que ku jege góor ñi dañ si am part responsabilité nag ki jël ñaari soxnaam takk ko ki jël ñetti soxnaam takk ko ba ñeenti soxnaam takk ko dafa am part responsabilité si ku jëge si kër gi dafa am lu ñu ci war def. dafa am lu mu ci war a def ba tax na tey jii ah suñu waxtaan bii du yomb tey man moom góor ñi rek laay waxal ndax góor ñee doy waar. lépp ñoom la ndax wujje dafa metti wujje neexul ku sañoon doo bokk dara ndax wujje nag mbaatoon tontu daam xam nga ne wujje moom ci góor lañ ko njëkk natt bu góor ga dee ñu doo ko natt ci jigéen jigéen ji xam ñu xam ne jigéen ñee ko àttan. Ah. soxna Ndeye Yaara tey dafa xaw a wéra moo tax soñ mee ko jàpp ak baat bi moo tax tey xam naa question yi du bari Ndeye jigéen ñi dañoo jël wujje rek def ko seen rek poosé ko ci euh, loolu man dama jàpp ni daf ñuy tardeel ci jamono bi ñu toll nii parce que yaakaar naa bu ñuy wujje mën nañu dañu war a comprendre bu njëkk mënoon na mënoon na métti mais léegi ak réew mi fi mu toll nii mooy wax naa ko rek sunu émission bee passé léegi benn jigéen mënatu fi bañ ni man damay wujje parce que léegi foofu la réew mi toll parce que ñu ngi naan jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi léegi bu góor bu nekk takkee benn jabar kon jigéen dana am ñoo xam danañ fi des duñu sëy kon dañoo war a comprendre bi que nag neexul parce que bokk dafa metti loo bokkul ne doo nangu ku la ci ëpp da danga ciy nangu tolloo ki nga ko bokkal moo tax bokk metti mais dama leen damay damay jàpp ni buñ ko jëlee def ko loo xamante ni dañ ko teg seen kanam chaque jour ci lool lañuy nekk dañuy tardé parce que jamono toll na foo xamante ni euh, góor ñi li ñu mën rek la ñuy def mënuñu lépp man pour man jigéen jigéen bu muus bu ne boo amee wujju boo bañee sa wujju raw la parce que lépp sa jëkkër mënu ko def da nga a dem war a sa doole xool leneen loo def loo xam ne améliorer sa vie yokk say bien jéem a sa bopp man man pour man loolu moo ëpp sens que wujjee parce que wujjee amul sens defante yoo xamante gis nañ ci ñuy xëppante ndox ñii di tàngal ay ay feer di ko teg seen wujju te yooyu yëpp woy bu dul fay la pour man góor sax jaru ko man boog man man mujj man bu ci yéen nii naree am man man su ma doon wujjee yéen nii nar ci am mu leer ne ma ne lii fa muy jëm du mujj du baax man je préfère ma bàyyee la ko dem wuti leneen voilà masala ba tax na wax nga wax lu am solo wax nga loo xamante ne dara dindiwu ko réew yi ñu toll nii ak jamono bi ñu toll nii uh-huh. kenn mënu fee bañ wujje uh-huh. wujju par force de am mais bu nekk nag jigéen bu ne uh-huh. jàppal ne sa goro mooy sa wujju ndax sa goro bi sëy ci kër gi ba jur fa doom ju baax jur fa doom ju rafet toppatoo ko ba mu normal ba jullite ba nekk teg ci yoonu siraatal mustaxima ba bëgg doomam ba tax nga bàyyi sa yaay ak sa papa ñëw ci këram kooku nga war a wujjal ba jur fa doom ju baax joo xam ne yow tamit nit dina ko gis bëgg ko ba nga am goro loolu mooy wujju mais jël sa wujju def ko yenn yi te man li ma naqari ba gën maa metti mooy tonto daam da ngay gis jeeg boo xam ne day nekk ci këram di sëy jëkkëram dem doxaan takk jabar indi ko ci kër gi mu tax sëyam dem ñibbi ndax lan du ma wujje te su demee jëkkëru jàmbur moo koy doxaan en li ma ci li ma ciy wax mooy mhm. man benn soxna laa am man mhm. man personnellement pour ñi may dégloo tax <laughs> non naam ñaar nag. déedéet. mais foog ñu yàlla suñu borom bi muy bi muy bi muy wax ñu takk jabar. Mm-hmm. waxul benn. Mm-hmm. commencé wul ci benn de. dañu mm-hmm. ñaar. takk leen ñaari soxna. ba ñett ba ñeent. foofu leen comme dafa jëlale benn. bu takk leen benn soxna rek. mën na yem ci benn. il faut jigéen ñi xam loolu. yàlla dina takk ñaar ñett ñeent. foofu la yàlla yem ak ñun ñeent la yem. waaye commencé wu si benn xam nga benn kon obligatoire nga am ko kooku moom kenn war na koo xam loolu mais kujje dafay nekk ñaari façon wax nga ko léegi dafa am façon boo xam ne nii bu ñëwee day dem sa côté goro ba xëy na boobu danañ si dugg mais kooku tamit benn kujje la boo xam ne diggante goro la ak doomu jabaram doomu euh, jabaru doomam bi sëy kooku kujje am na beneen kujje bu nekk seen biir ñoom ñaar ba finalement sax di force day mujj am si diggante boobu ndax goro ba la xajoowul mm-hmm. ko xëy na bu ñu doon waxtaanee goro dana ci mën a dikk si biir waaye kuje jigéen ñu si bari dañ si dul bàyyi xel nii mm-hmm. ki yàlla wax takkal ñaar ba ñett ba ñeent mm-hmm. kon dafa am trois takkaat soxna am na wax nga ko léegi waxuma ndaaya moo ko wax moom moo ni euh, nuñ koy nuñ koy waxee sax yàlla suñu yàlla suñu yàlla suñu borom jigéen ñi maanaam dañoo bari ni ñu bindee la ndax si faaru càmmoñu góor la génn sàkk jigéen sàkk jigéen noonu la jigéen bare ndax boo dee xool faar amul benn cër bu nekk ci doomu aadama te konte woo faar te faar ëpp la loolu moo tax mu xëccee si faaru càmmoñ góor sàkk jigéen jigéen ñi ñoo ñuy gën a bëri moo tax yàlla commencé si benn ñaar ñett commencé si ñaar ñett ñeent bàyyi jëlale benn waaye ku jege léegi bu njëkk bu jigéen daan sëyi soxna maam Marème bu njëkk bu jigéen daan sëy dafa am lu ñu ko daan yabee léegi loolu dafa tumuranke dafa tumuranke ba tumuraanke si imaam yi nga xam ni tey ñooy mayee sëy parce que benn imaam dañu imaam yi dañoo fekk jigéen ñi seen bëgg-bëgg ñu ànd ak ñoom ci loola bu njëkk bu ñu daan takk sëy si jàkka ja ba toog ba imaam xut ba pare xam nga sëy xanaa xam nga c'est normal bu ñu koy takk ku góor ki ku jigéen ki dafa war a toog mais comme tooguñu imam dafa daan jël naayim bi na ko demal ma sa kër ga àddal ma sa kër ga nga waxtaanal man ñoom bu naayam bu dikkee dina waxtaan ak jëkkër ji waxtaan ak jabar ji ñoom ñëpp ñu toog ñu waxtaan bu bu ëllëgee bu kujjee amee maanaam ko koo xam ne jëkkër ji dina dem takk deuxième femme jabar ji du ko def problème ndax lii xamoon na ko sa say ba ndax waxoon nañ ko soxut ba nga wala naayam bi ñëwoon na wax ko loolu sa yab gañ ko doon yabe bàjj nit la daan yabe doomam bu jëkk yaay bu doon may doomam daan ko xaaral sa bàjjen ñëw waxtaan ak yow bàyyi da daan waxtaan ak doomam léegi jot googu amatul am ndox jot gi amatul ndax gis nga ka ngay waxtaanal bis boo koy mayee ma nga sa salon ba fa lay yem toute la journée kan mooy waxtaan ak moom kenn kenn <laughs> doy na waar léegi nag nag bu ñëwee moom ba mu agsi si kër gi léegi moom dafa jàpp ni kër gi léegi defante bopp sa bopp la mhm. léegi sóoraalewul ki nga xam ne moom la fekk si ki nga xam ne moom fekk même fekkee ni moom sëy yu jëkk yi lay sëy xam na maanaam jéegu sën la mhm. d'accord na ñu këpp di ko buub di ko teg mhm. moom d'accord na loolu mhm. moom mu nekk jéegu sën nekk si biti jéegu pusa luñ buub këpp ko mu ko bari ñaw ko bu fekkee ni ko bu demee ba di encaissé ba sën bi sëkk te kenn dindiwul sën la day mujj fépp moom itam bu ko defee problème am loolu moo tax sànq mën la góor ñi da ci am part responsable bu rëy voilà. Mhm. Mhm. macha allah ba tax na li nga wax yépp lu am solo la ndax jigéen dañ koy yàpp jigéen danga koy xoolal royukaay léegi nag li amoon ci sëy yu njëkk ya dafa amatul ci jamono yi léegi sii ndax bu njëkk ba dangay ndayalee sa doom koo xam ne sëykat la koo xam ne muñkat la mais léegi ki ngay ndayalee mooy ki nga xam ne yaakaar nga ci moom 100000 francs ak ay tuchi ndax danga daan gis koo xam ne jàmbaar la nga ne sa doom kii de bëgg naa nga mel ne moom royal ci moom. bàjjen yi tamit noonu defe naa ne bàjjen yi fi mu toll nii dañu bëgg nañu xaalis bëgg xaalis goo xam ne talatuñu sax toog di xool seen doom yi ba naan dañu leen di doxtaanal ñetteel bi mooy muy lu bon lu ñaaw loo xam ne dañ koy def te rafetul te dañ koo war a teg ci suuf ndax gis nga sa yaay du morom yaay kilifa la ñu lay maye muur la pour nga war a dugg sa biir néegu sëy nga jël sa yaram def ca lu la saf sol say dàll ne nongu ci sa digg lalu yaay yaa say morom dàll ya nga teg sa kaw lalu yaay est la gis nga loolu ñu ngi koy def mais dafa nekk loo xam ne rafetul nga toog ne da bëgg barke. am na mhm. loo xam ni sax. Mhm. lu si bëree bëri dañ koy xool si sëy yi sëy yi jamono bii laa wax de. jëkk mhm. yi am muy can. respecté wuñ can. can dëgg la. si nga can boo ko sàgganee. lii indil problème si sëy ëllëg loolu si la ndax far tey sëy yëpp can rek moo si faral. bañ na ko ba imam bi bu ko jëlee sa jàkka dana ko jox sa waajur bu wala kañ toll ko mhm. jigéen kee ko moom jot. Mhm. bu ko yaayam gis mhm. loolu lay ñaan yàlla yàlla dimbali ko sa mais léegi ñu si bëree bëri la wax lii. ñu si bëree ah, na man si moo tax mu am problème. ba gis laa yu sëy ba mhm. cislaayu def dëgg la faw ñu mhm. ko ci yoon mhm. dëgg la wax nga dëgg wax nga dëgg gu wér dëgg goo xam ne fi lañ ko fekk te képp koo xam ne bàyyi nga ko rek defe naa ne ku jàdd yoon rek di nga dajeeg xaaxaam ba tax na can googu dañ koy respecté dañ koy jox suñu gëdd gëdd bi mooy jëndee ko sa sër bu baax teg ko sa mu waar bis boo amee problème ak sa borom kër wala sa sëy lu la ci neexul jàppal ba set julli ñaar ràkk jël sër boobu fekk mu ngi sa kaw loo ci ñaan yàlla rek defe naa ne yàlla da koy mottali mais defe naa ne fi mu toll nii can boobu noonu nga wax ak sër boobu xam nga ruñ ko lampale xam nga da nga ne bongo waaye fi mu ne whatsapp bi lañ ko rampale waa jànq mbaa xam nga ne maag sama waa mbaa naa nga mag sàngam su ko defee kooku du sëykat mel ne mamareem sëyu sëyluwu lu mu lay wax dangaa ñàkk fayda su doon man la man du ma nangu benn góor di ma teg stress defe naa ne loolu day xaw a doy waar Babacar bu Euh, fay naa la alhamdulilah rabi alamin di la wax na mu nañ la maa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax jërëjëf yaa ngi fii tey ci biir Leral TV tey ñu ci seen euh, émission aada ak cosaan ñu fas yéene taane thème bu am solo muy euh, kujje lan nga ñu mën a wax ci kujje yaay booy. alhamdulilah rabi alamin xanaa sant ci yàlla bu baax di lu seen liggéey am na solo. ndax di dugg ci askan bi di leen laaj nu ñu dundee mhm. loolu yaakaar naa ni émission gën a koo riche ujjee euh, nag euh, man moom damaa juddu fekk sama yaay ujjeewul waaw man it euh, yàlla suñu borom dimbale ma am borom kër wujjeewu ma mais nag ba tey ragaluma wujjee ndax wujjee nañ naan wërsëg wërsëg bokk wërsëg la ndax wujjee ci xool la boo ko deful sa xool doo wujjee parce que jamono juñ tonn surtout jamono juñ tonn boo bëggee def wujje moom da ngay sonn waaw ndax yaakaar naa ni nit ñi dañoo wérul soxla yi bari te dara fajuwul soo ci bëggee boole nag wujje na ci biir kër yi day daal di metti loolu waaw day daal di metti loolu man nag wujje moom dëgg yàlla yéenewuma ko nag sama benn moromu jigéen nag waaye nag ragaluma ko waaw ragaluma ko ndax yàlla moo ne góor dafa war a am ñeenti ñeenti soxna waaw góor dafa war a am ñeenti soxna mais ci kaw mu mën ko waaw ci kaw nga mën takk benn ba ñaar ba ñett si kaw nga mën ko boo ko mënul nag nga yem ci benn bi xamante ne nag moom la la yàlla moom la la yàlla séddati te moom la doole googu nga am tax na léeg góor ñi ñooy ñooy gën a ñooy gën a yokk jigéen ñi téppati waaw góor ñi ñoo koy gën a yokk ndax góor bu fekkee yow dem nga ba takk benn jabar ba ñaari jabar war ngaa mën a yebale say jabar boo demee ba mënoo yemale say jabar nag nga bañ a nga bañ a jël jabar di tegale jabar di teg tegle waaw ah, parce que tamit boo tegalee jabar te mënoo yemale jabar ah sa kër day fulaxoo waaw ah, sa kër day fulaxoo te jigéen ñi tamit ma leen di woow ñu muus jigéen ñi nañ muus ndax jigéen fi ne ko jigéen boo gis rek mi ngi am feebar guwaat lu ko waral mooy xalaat sama jëkkër nii sama jëkkër naa li may li may diggee jigéen ñi daal ñu bañ a gëm seen bopp ci wàllu wujje ñu dem liggéeyi ñu dem liggéey daan seen doole ndax yaakaar naa ne boo demee di liggéey di daan sa doole di nga tal leneen lu du wujjee ci biir kër yi. waaw loolu daal laa amoon si li ma li may sànni ci émission bi alhamdulilah. waaw kay yaay booy kàddu yi am na solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax. merci jërëjëf. ñuy jaajëfal Ndeya moom mi nga xam ne moo demoon ci terrain bi jëlee li ji éléments yu am solo yooyu moom ak tonton Matar Sakho ñu ngi leen di ñaanal jàmm bu baax a baax a baax waaye kenn du teneen daa faxa ñu ngi koy ziyaar bu baax a baax di ko ñaanal jàmm muy jigéen ju jàmbaare jigéen joo xamante ne car allah yow nee naa doo am wujju yow yow de wujju doo ko am yow. ndax yow sa monsieur fu ngeen toll yéen ñaar yéen a ngi ne ñàpp sokoto sokoto ñàpp wujju doo ko am waaye man mi maa ñëw si biir di wujje ragal wujju doo waxu ragal wujju nga fi wax waaye monsieur takkal ñaar gis nga kudul tukki doo xam fu dëkk neexee te nag daa fa xam yi utal ko ñaareel si yim lay jox ak yëpp ay baab la rek takkal ko ñaareel tonton dégg nga lii tataate nag mu wax léegi si boñ ci doon jàngatal tuuti tey la ngeen ci mën a leeral waaw dégg naa mm-hmm. euh, loo xam a xam nga kujje moom yaakaar naa ni mhm. euh, jigéen ñu si bëree bëri bëgguñu ko ñu mhm. si bëri bëgguñu ko xaw ma nag lu tax xëy na ñoom ñooy xam li tax euh, wante dafa wax léegi ba wax si góor ñi mhm. parce que wax na dëgg nag na kujje yoo xam ne nii góor ñi ñoom ñoo koy def du ku jigéen ki ku jab jëkk jabar ji moom mooy bañ wujje ku góor ki ñoom ñoo dul tolloore c'est-à-dire bu mu nee tolloore góor dangay nekk góor takk maanaam góor dangay am fulla ak personnalité sa biir kër boo ñëwee nga xam ni ku am personal personnalité ku am fulla ñëw na si kër gi muy borom kër gi ñëpp jox la cër ñaari soxna yëpp jox la cër bu ñuy toog di waxee yow sax dañuy sukk waaye bu fekkee da nga am. looy mënoo koo am jamono léegi ak a jafe. ko am. mais ku góor ki yow nga mën loolu. Mm-hmm. parce que boo ñëwee mm-hmm. war ngaa wane ne wane ne man ñaari soxna laa yor mm-hmm. bokkut ak man mii nga xam ne am naa benn jabar rek. bu ma neex lay duggee ci kër gi nga nekk gaynde mm. ñaari soxna même jarul ngay nekk gaynde parce que góor bu nekk gaynde amul importance góor bu nekk gaynde ba ñu ragal ko njabootam ragal ko ay soxnaam ragal ko amul benn sens da ngay wane ne ñaari soxna la am maanaam gis nga ñaari ganaar sax bu ñu dee xeex dañu am koo faral waaye bu ko fesal même boo fekkee da ngaa jéng dem sa ñaareel ba bu sa Dieng. léegi dèjà yow da nga ne bu dee da ngaa jeng dem ca ñaareel ba kon yow li yëngal kër wax nga ko. waaw c'est-à-dire que déggoo na ma noonu. jeng. far. far laa ñàkk si doomu aadama. kon ñaareel rek lañu war a faral. du déedéet mais mën nga faral aawa. si mën nga faral aawa bi parce que ay doom yi nga jur sax da am ñoo koo faral mais dañ ñu la boo nekkee sa kër bul wone ni nii laa féet ak nii laa mel kenn ku ne yaa xam sama tulal nag. da nga tëdd sam ñaareelu guddi xay na fa muy fa muy fa àgg ak yow ba nga yëkkati sa xaalis neexal ko noonu neexal boobu nga wax noonu xam nga jigéen ñi ñëpp yamuñu tey mën nga euh, tëdd ak sa ñaareel nga ni am fu nga yegg ak moom yaa ko xam léegi moom yëg sa borom nga yëkkati dara neexal la mais ñaareel boobu léegi la li indi wujj bi bu xëyee suba da koy manifester ci kanamu aawa bi te fekk na jëkk borom kër bi daawul comporté wonoon ak aawa bi xam nga déjà loolu rek indi na problème foofu la gis nga dafa am benn waa joo xam ne dafa dem dafa dafa maanaam ñaareel bi. Mm-hmm. dafa ñëw si wujj wi aawa bi ba maanaam waa ji muy ko dara. Mm-hmm. mais moom dafa bëggoon a kii waa aawa bi daal ba koo ba koo wax loo xam ne ni amul. Mm-hmm. dem si aawa bi na ko sama jëkkër wee li ma ko defal biig fukki junni la ma may. te fekk muyu ko dara fukki junni pour saboter aawa bi. te boo xam ne sama bi neex ma. mayu ko dara aaw bi toog moom si saal bi na ko yow day sàmba alaar nga na fii laa la ñaan junni démb mayoo ma ko diw nga fanaanu mu bi may ko fukki junni mu ne ko ah bon mu ne ko waaw mu ne ko moo la wax loolu mu ne ko waaw mu ne ko wool ma ko bi mu ko wooyee ba mu ñëw mu toog mu ne ko yow da ne wax ni kii dama laa may fukki junni muy nak na mu ne ko dama doon dama ko doon naxloo moom itam mu làmb poosam ku góor gi may aaw bi fukki junni na dèjà kon kay ñàkk na moom doon manifesté woo fukki junni tax moom ama fukki junni fay may na aawa ba fukki junni na si kanamam na ko yow itam comme joxoon naa la fukki junni jéeg am yow sa wàll nga tax jigéen ñi maanaam bu fekk relation bi nga am ak sa borom kër mooy li nga laaj léegi rek ngeen nekk si bu kër gi yéen ñaar mhm. xëy na peut-être seen guddi neex na wala ñu ñu ngi ko mën tuddee mhm. mu yëkkati xaalis may na wala nga am ban mel ni biir boobu dootoo ko kenn mhm. doo toog suuf di naan di ko wax. Mhm. mais nag loolu dafa jafe. Mhm. xam bu fekkoon ni tey wax nañu ne cosaan bu dëkk sëy sëy cosaan. Mhm. te comme seen émission bi tey ñu ngi ko tuddee cosaan. sëy cosaan dafa amoon. ku ne xam nga ne sëy cosaan dafa amoon. ku ne xam ne ak can takk nañ ko sax dugg. ak can takk nañ ko sax aaya ak waaw. yëpp def nañ ko. voilà ku ne xam na ko loolu moo amoon. sunu baaraay yooyu wala sunu maam yooyu bu ñu dañ daan bokk sax yëre yi so tey bu sa morom demee yaa koy taalal li muy togg tey mm-hmm. bu sa morom demee yaa koy sàndal tey ay doom léegi nag loolu tumuraanke na amatul si mm-hmm. jamono ñu toll nii mm-hmm. mooy li ma wax nii léegi dama wax nii loolu moo am mais léegi amatul tey boo fanaanoon sax suñu ñaare di tof tof lu ma may ko juróomi nit boo xëyee da ko da ko da ko boo fanaanoo woon ak sa ñaareel may ko juróomi junni boo xëyee di ko réccu mais tamit yéen it da ngeen a doy waar ndax dangay takk soxna nekk ak moom ay at nga takk ñaareel lu def rek nga ne ko lii de mosuma koo gis mm. xaw ma ko woon yu bees siire mm-hmm. man ndekete maa ngi doon dee dañ ma doon karité dañ ma doon gawe yéen tamit kenn rawu leen da ngeen a doy waar <laughs> yow yéex i mbir. Eh. wala ñu daan topp ay waay ay waay xam na ni yaa ngi dugg feneen quoi. dëgg la dañoo yéexi mbir. Mhm. c'est-à-dire ñoom kenn ku ne li la war boo ko defee rek. Mhm. sa wujj mën laa def lu xëpp sa fëpp kii sa fëkk sa bët. bu fekkee ni sa ji ñëw na tey tey tey. Mhm. mënul def lu fëkk sa bët. ndax li lii muy def def nga ko. waaye jigéen joo xam ne nii tey ñoom ñii ma jéggal. ma nga sa boolu añukaay bi mu añi mhm. fa la ko jëkkër gay fekk bu wàccee seen kër dëgg la yàlla nañ si mais bu dugg dugg si dëkk bi am na mhm. am na waaw si añukaay bi ñu toogoon di waxtaan foofu la ko jëkkër gay fekk bu seen kër bu wàccee mhm. xoolal loolu dëgg la nga ne sa doom bu jigéen mayal sa papa ndox nga ne sa doom bu jigéen tànqalal sa papa ndox mu sangu sa doom bu jigéen boo alal fur nawet bu raa dem nga attaayal sa papa mais yow nag léegi nag boo xale bu ndaw xale bu ndaw bi def noonu nga siisu commencé siisu naan ko di lii mu koy defal na tam bakkan jàmm ah. doy na waa daal ba tax na ku si nekk rek del bàyyi sa xel bu baax surtout ñun jigéen ñi ku ci am borom kër jàppal ne bis bu nekk sëyti laa ci sama kër mhm. bis bu ni ak yu bees ya may war a defal sama borom kër mais ndokk jar naa tey ku yàqule rek wala ku laax lakk rek ndokk jar naa moo la ko yàquleel ndax jigéen ñi bu ñuy jaayu car macha allah dañuy defaru ba jekk fu xeesal rafetee fu sa bëy baaxee maquillage defaru ba jekk mais bu ñu xasee ba am jëkkër pare nañ ci yooyu yëpp seen kanam gi sax duñ ko laalee poudre wala crayon dañoo génn am fu ñu dem pour lan baax yow jeeg nga bu tayee laa la sa marinière bu ne mu bu subaa laa la sa yére tubaab bu digg jàmm pare saa dajalee am tuuti sa weccet bëgg ci sa jëkkër ba xolam sedd mu jàpp ne kat man lii ma yoroon fa mu nekkoon mu nga fa ba tey mais bu fekkee da nga ne man ndokku jar sër bi nga yendoo moom ngay fanaanoo sa jëkkër xamul ci yow dara sa jëkkër du génn sax ba dégg ci yow appel téléphone bu neex mu xam ne lii sama soxna la kon nañu góorgóorluwaat ci sëy yi bu baax a baax te xam ne góor ak xale ñoo yem ku ko nax rek yaa ko moom Babacar bu dee jàppandi la nag ngay ñëwaatal ñu benn élément ñu dellusiwaat plateau lan nga ñu mën a wax ci kujje yaay kujje daal moom du dara lu bokk ndey ak bokk baay ndax góor gi la indi ci kër gi bu sañoon da ngeen di bokk ndey bokk baay ndax bu ngeen bokkee nday bokk baay fu mën a dem liggéey xolam dana sedd te fu mën a dem itam xelam dana dal ndax góor moom li ko war ñaari jabar ba ñett war na ko kon nag yéen di nekk ci kër gi di wujje yéen a war a bokk ndey bokk baay ndax ku jëdu dara ku jëdu dara loolu doo nga laa ci xam na bokk wërsëg la yàlla bu ngeen àndee yàlla man a wubbil seen jëkkër xéewal ak naataange man da laaj man da man aawa man aw ma mm, bu ñaareel ñëwee bu ñaareel ñëwee maa ngi koy xaar di ko boor ko. waaw kon jeex na indi beneen. waaw na indi. merci beaucoup ñu ngi jaajëfal suñu yaay jooju nga xam ne nee na aawa la keneen ñëw su ñëwee ma boot ko waaw am na ñaareel yoo xam ne neex nañoo boot soo leen bootee sa dara du metti ndax amuñu béjjënu dënn mais am na ñaareel yoo xam ne ak ñoo doy waar sikk ba mel ne ndey yaa lañ def ak ñoo doy waar ay ku leen boot dootoo ko defati de bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax ñaanal gudd fan di ko ñaanal sa borom kër boobu ak say njaboot ndax yaa tey la nga ñu mën a wax ci li nga xamante ne moom la yaa booy bi wax waa sama yaay ji moom li mu wax moom nuru na ko ko nee na moom ragalu ko bu ñëwee ñu boot ko mais ni mu waxee nii nangu xool caméra bi na mu siggi xam naa ne ragal na moom ñemewu ko sax xool moo lay wan ni moom ragal na mais garaaw nee naa ko tonton dina indi beneen wujje moom dafa nekk loo xamante ni comme ni mu ko waxee rek bokk wërsëg la rek euh, te li mu wax ni bu ay soxna yi bu ñu boo bu ñu juboowee bokk ndey ak baay euh, dañuy dañuy dalal seen xelu borom kër day tax moom bu génnee xelam dal mu xam ne bu ñëwee jàmm rek lay fekk ci biir këram te yaakaar naa aussi ñun jigéen ñi loolu moo ñu war parce que am na góor ñoo xamante ni euh, suñ seen soxna dañ leen di boole ci benn kër am na ñoo xam ne amuñu moyen boobu ñii dañ leen di luyeel seen soxna duñu bokk kër mais bu ñu bokkee kër dañu war a fexe borom kër parce que loo xamante ni moom mënoo koo dagg yóbbu mënoo koo def dara da ngay rek muñ jàpp ci yàlla jëm koo bokk bu fekkente ni yow nangu nga góor gi benn la ñoo bokk njaboot gi ñoo bokk kër gi dañ koy daal rek te gis nga wujje nag du dara wujje muus donc la tonton tey lan la ñu mën a leeralal ci li nga xamante ni moom la yaa booy bi wax mu nekk lu am solo ni ni mu wax sama mbokk la bàjjan la si man maa koy nuyu bu baax jékki mbay siyaar naa bu baax waa comme li mu wax dafa nekk lu am solo macha allah euh, wante laata boobu dafa am da ngaa wax léegi lu am solo muy si wàllu set laata ma ñëw si contribution bu jékki parce que jigéen l'islam moo jëkk a santaane loolu bañ nañ yaakaar nañ ni buñ dee togg daal dañoo war a sol tënk bu daq riitu l'islam dafa bëgg ko civilisé ni la ni mu la nim la wax nga civilisé booy may nit ki ndox sa comportement ak li koy may cet ji mu war a cet noonu la la l'islam santé booy togg nga sol lu rafet see lu rafet defar sa bopp ba mu rafet nga togg lu neex te bari nag te doy sëkk ba fekk dépense ba bari ah, yéen seen dépense bariwul de waaw <laughs> ñooñu ci voilà mu nekk lu am solo ñaareel bi mooy jigéen ñi boo gisee jafe-jafe yi am xam nga xale yu jigéen ñi xale yu quartier yi léegi leen gaa yi tuddee mm-hmm. suñu jigéen dañuy ruubee kër gi mm-hmm. jamono jii loolu lañuy def ñoom ruubee bu ñu ruubee ruubee nag amuñu lu ruubee mm-hmm. dañuy toog nag sëy bu ñu ruubee nag kañ fa fekk xaw a nooy rek ñu yox yox yi dañuy nangu sëy ba takkati sëy ba ñoom noonu la ñuy def soo gisee seen sinab yi bu ñu leen dee mayee ñu ànd ak seen i copines ñoom ñëpp toog sinab yi ni ñuy wax si sinab bi nga xam ne kii dañoo jóg pour ruube ah, jóguñu carrément mm-hmm. pour sëy mm-hmm. lu ñu fa fekk baax na mm-hmm. lu ñu fa damay faral di wax naan da nga dégg sax parfois benn njuumta si ñoom ah, benn xay xaritam naan ko yaa ngi doog a am sa première jëkkër kon c'est-à-dire yow sa première jëkkër soo demee loo ko fekk baax na war ngaa am deuxième jëkkër kon déjà saytu ñoom mooy problème bi léegi ñu fekk si sa kër yi nag xam ne ñoom d'accord mën nañ ñoo wax ne sa sëy yu jëkk yi lañ commencé ñëw ndax sëy yi léegi fan la commencé soppee ko boo commencé 2000 jëm kaw ci téléphone portable yi ci la sëy yi commencé yëngu ak andi problème andi jafe-jafe luy ay ay maara wala luy ay imam mhm. yooyu yëpp dawuñu ko fi dégg mais léegi mi ngi am benn xale bu jigéen ak bëggante ak benn waay mhm. bëgg na koo lekk xaalisam bëgg na faa def benn sëyu contrat bu ndaw lekk xaalisam gis benn daam daam mu nekk si koñ bi rek ñu luye ko xam nañu daam mën naa xut ba si alxuraan rek ñu luye ko jox ko dara mu dem takk sëy ba ñetti fan lay sëy ba am ñu ne kooku divorcé na ka yóbbu na xaalis loolu moo am léegi léegi nag ñi fi fekk nag mhm. muy aawa yi mhm. muy première dame yi nga xam ne tey ñoom la lépp ñoom la mhm. ndax boo demee ba nit di wax ak yow naan la ba nga amul dara man ak yow la woon wax na dëgg wante ñoom li ma waxoon léegi jigéen warul yeex ci li mu war a def waa ji mii yab doom ji ne ko soo demee sa boroom kër nan nga fas yéene say lan la ko doom ji wax dani ko lu ma tere ma bàyyi lu ma def loo ma def ko lu ma digal ma def ko da lu ma tere ma bàyyi paa bi ne ko déedéet daal di ñëwaat sa mbooloo mu ne leen sama doom mënu ko la sëy ndax li ma ko wax defarulub sëy day yàqub sëy cest à que daf ko doon jàngal ni ko soo demee sa sëy ba bul xaar ñu lay sant ngay def loo war a def nga war koo def def ko xam nga jigéen bu toogee ba jëkkëram naan ko may ma ndox ma sangu defatoo sa droit may ma ndox ma naan sa jëkkër liggéey ba wàcc toog surtout na ouvrier yi xam ne dañuy sonn coono bi ñuy daj góorgóorlu yi ñëw toog ne la may ma ndox ma naan rek defatoo la la war war ngaa seral ndox laata mooy ñëw xam nga heure bi mu ñëw mm-hmm. bu fekkee da nga koy tàngalal ndox war nga ko tàngalal ndox laata muy ñëw bu dëkkee dafay sang nga ko ndox maa ngi si biir du ko waaye ñoom ñi fi fekk problème yi ñu leen di rawee si jamono jii loolu dafay bokk ci communication ni ñu communiquer ak seen borom kër sa gaz jeex na dafa am noo koy communiquer ak borom kër gi xam na ni kii loo xam jotul yow day góor góor amul nooy communiquer ak moom jeex na sa ceeb jeex na amul noo ko moom ba du metti jigéen ñi est-ce que nekkul aussi tamit ci parents comme ni nga ko waxee parce que sa doom bu waree sëy bu fekkee ne mi ngi doog a sëy mosul sëy premier sëy kon yaakaar naa foofu école la lu mu fa xam rek dañ ko koy jàngal mais euh, boo dee nekkee yaay sa doom nga xam ni mi ngi doog a sëy mi ngi dem da nga ko war a yab waxuma sax buñ koy mur mais da ko war a woo ci néeg wax ak moom mm-hmm. comme yaa ko ci jiitu yow yaay Euh, xam nga lépp jaar nga ci lépp nga teg expliqué ko ni ko lii ngay def li ngay parce que yooyu ngay wax yëpp am na ñoo xamante ni du du seen bon jigéen ñoo xam du seen bon leen dañ ko xamul miinuñu ko parce que mosuñu ko def xam nga loo mosul def moom boo duggee ci ne xamoo contact bi fu mu nekk da ngay a conseiller mooy def sa borom comme li nga expliqué léegi déjà mooy émission bi comme ni ñu koy defee nii lu am solo la jigéen ñi bu ñu koy déglu dinañ ci jàng loo xamante ni ëllëg ku dugg sa néegu sëy di nga ne man dégg na déggoon naa lii déggoon naa lii su ma demee yi loolu laa fa war a def mais man defe naa ci fët bi yëpp dafa parents yi dañ ci am part de responsabilité parce que xale doo ko mayee mu def mariage def li muy def dem sëyi rek nga ni jeex na jeex na danga koy topp man pour man boog loolu laa gis jërëjëf Ndaya yaa wax nga lu am solo mais defe naa ne doom bu jigéen doo xaar bañ ne tey lañ ko yi wala ba tey lañ koy mayee nga di ko joog a jàngal sëy sa doom jour bu mu judduwee jàkkaarloog yow nga di ko nàmpal ci nga ko war a jàngal àdduna xamal ko nan la mm-hmm. sa doom dina la xool fixé la ci bi muy xale sax nga jël sa loxo mur ciy bëtam mm-hmm. mu xam ne xale du wow bët mm-hmm. sa doom dina nekk xale def benn affaire wala mu sàgganu nga xool ko mu accee sa bët mu xam ne ni mu toogee baaxul mais jamono yu léegi si yaay yi si bëri taratuñu seen doom yi gis nga soxla bi ñu am kër yi buñ ko amoon ci doom yi tey doom du réer suñ ko amoon ci soomi doom yi tey doo dégg kenn naan sama doom bi fii la jaar wala fii la jaar wala nangam démb dañuy waxtaan ak benn ni mu ne ma sama doom di tabax bee lay fanaan mm-hmm. ma ne ko ndax lan mu ne ma mën lu ma ko dara ma ne ko mm-hmm. su fa bàyyem fanaanoon ñëpp yëg ko mm-hmm. sa doom bu fanaanee ci àll bi yow la neex mais bu fa bàyyem fanaanoon tey ñëpp yëg ko kon nag li ñuy def ci jëkkër yi buñ ko dajoon ci doom yi bu baax mais tamit doom bu jigéen dañoo jàngaaniwul yaayam mooy royukaayam may santaat sama yaay bu baax kay te di la ñaanal jàmm yow nee naa la sëykat nga sama yaay daal sëy bañ koy woowee may mun a géjax yàlla na sa jàmm yàgg lépp loo sëy foofu rek yàlla na la ko yàlla defal ci barke Seydina Muhammad defe naa ne ñun ñii xamuñu sa xaalis xamuñu ko seen ndax lan suñu yaay mosuñoo wax kaay demal ma kër tontoo diw kaay defal ma nangam kay nangamal ma ndax lan daf ñoo yar ci doylu yar ñu ci teraanga yar ñu ci xam àdduna kon defe naa ne kay dama lay ñaanal yàlla na sa jàmm yàgg di la ñaanal jàmm bu baax a baax mais nijaay tey jamono bi lu ko toj lenn la jamono bi doy na waar tërë dina ndax lan góor ñi man góor ñi li ma jaaxal mooy li leen yàlla sant yépp seen ñeenti jabar yi lañ ci xam góor ñi sikk nañ bëri nañ affaire ca ñama ko war a wax ak ñama maaseel tollook ñoom góor ñi dañoo xaw a doy waar ndaxte dañuy ñëw gis jigéen di ko doxaan bëgg ko sama jabar nangam sama jabar nii sama jabar naa am na góor ñoo xam ne dañoo dëgër bopp ba mel ne Mor Talla Dieng sama doom bàjjen boobu boo ne sangul eh li ma sol baax na faxasu génn kaay ma raxasal sa tànk moo moom luy loolu man dama am jot boobu yow yaa am jot boobu uh-huh. Uh-huh. mel noo xamante ne nii dëgër bopp ndax di nga gis góor ñoo xam ne dañ naan xam nga wax bu ñoom waxu jigéen maanaam amul këyit uh-huh. waxu jigéen ak am solo ndax boo génnee solo lu tilim sa jabar la ñuy wax soo génnee say tànk xar dañ naan kii xanaa yorul jabar kon bàyyi leen xel jigéen ñi bu baax jaw mi jigéen tamit góor góorgóorlu bu baax sa boroom kër bu ngay dem ci douche bi gënda sa rasoir ko ci peñe bi wala ci salle de bain bi jënd sa peñuwaar bu rafet tegal ko toppatoo ko bu baax a baax mu xam la ko war mais bu fekkente ne yow da ngay xaar ba sa borom kër wax la may ma ndox ma sangu ah defe naa ne nag gis nga ko naagu daagu te ku daagu ñu romb la lan ngay wax góor ñi. dëgg la euh, góor ñu bari ñu si day waar de góor laa de waaye wax dëgg yàlla comme ni nga waxee moom bari na moom am na. Mhm, mhm. am na am na ñoo xam ne nii maanaam yow ni nga. ma communication bi nga war a def sa soxna li nga war a wax sa soxna même sa soxna parfois day génn sol dara nga ne ko mm-hmm. li nga sol nangam mm-hmm. nga sol mm-hmm. mu ne li nga sol su nga sol moom lay sol parce que moom mi jël choix bi ne bii laa bëgg nga sol moom lay sol may ko loolu parce que bu ëllëgee bu jëm ñëwee si kër gi dafa la ko yow da xam ne yow sa aaw ah, daala la ko def lii kat du gan ci yow mhm. sa aaw dañ la ko defal mhm. mais soo ko bañalee sa aaw bi di la ko defal mhm. sa ñaareel ñëw di la ko defal nga nangu ko loolu yaa sa kër amee problème yow la góor góor ñu bëree bëri seen kër amee problème ñoom la si ah. ko góor ñuy génne di doxaan parfois la ñuy wax seen gel ba ñuy doxaan ñaar dërëmi xorom dañ ko jëlee seen aaw duñ ko jox seen aaw ñaar dërëm yi jël xorom duñ ko jox seen aaw te pourtant ñu demee lañ fay nettali ñoom ba ndaw sa topp leen bëgg leen loola mooy problème bi nag sama jabar soo demee nii laa ko yore nii laa ko defee te dara du si dëkk dara du si am mais jigéen ñoo bëgg a yeew waaye nag maam dama yaakaar ne jigéen léegi ñoo bëgg ku leen nax jigéen léegi ñii mhm. ku leen dul nax doo leen am da nga mbir mi du naxee du góor gee lay nax de yow yaay nax góor gi waaw ndax xam nga nooy naxee góor gi ki bàyyi sa soxna mu jural la ay doom nga gis doom joo musul gis ci moom mhm. ak doom ni mu neexee imagine jigéen ëmb jur doom ja juddu ñu daaj la koo koy tuddee mhm. benn loolu lu ko dàq dafa am ñaareel ba doom ji war a sant sant yaay ñu jël sa sant jox la ko kooku lan la la deseel mhm. gis nga jigéen ñi fi ñuy juumee mooy dañ maa takkal wujju kenn takkalu la mhm. sa borom kër moo takkal boppam jabar yow góorgóorlul nga sëy sa sëy gis nga kiy ñëw mission lay dox si xam nga mission bi mooy lan maay sëy ci kër gi naa fi jur lu baax naa fexe ba samay mbokki jëkkër xam maay kan naa fekk ba sama jëkkër xam man maay kan gis nga loolu mooy sëy bi mais sama wujju nangam te man li ma jaaxal mooy sa jëkkër bu takkee ñaareel di nga xam ndaw sa fu mu dëkk lijjanti ko dafa ñuul dafa xees mës naa sëy lijjanti ci moom lu baree bari commencé wu ga te ndaw si tegagoo ko bët ay waaye wujju du dara nañ leen bàyyi suñu xel bu baax a baax a baax gis nga góor gu la tax nga sotti sa moromu jigéen asi mbaa nga lañ seeti ko gi day dem doxaani ji nga toog ci prison bu tàng bee kon defe ne góor ñi jaruñu loolu kon nañuy bàyyiwaat suñu xel bu baax a baax njóobeen bi bu dee ah, jàppandi na rek nga indil ñu beneen élément léegi ñu dellusiwaat place aada cosaan tey ñu fas yéene waxtaane thème bu am solo muy kujje lan nga ñu mën a wax ci kujje papa waaw kujje de mbiri jigéen te kujje moom ñaar koy def muy aawa ak ak wujjëm waaw wujje nag ñaara leen di boole jëkk leen di boole jëkk muy indi aawa ci kër gi dem takkaat keneen mu ñëw di ujje ak moom bokk benn waay am ko jiitu muy aawa ñaareel bi ñëw topp ci gannaawam ñu war a mën a defar ba mu baax dimbali borom kër gi waaw ah. ki jiitu di aawo su nangoo jiitu mana boot am ñaareelam rek kër gi neex ñii koy xal yi dafay tey nag di ujjante di xasante ko wala di xuloo ko xeexoo loolu du ujje kujje mag ñi dañoo waxoon ne ña ngi wujje ci yàq togg sa morom aaya na defar ba mu baax togg ceeb bu neex nga tey duma ko gën a man bu boo aaya nga dem wut say ganaar togg ba mu rafet nga taaj yaa ngi dégg mag ñi loo leen doon ujjee waaye nekkul woon ci ci xuloo walla xeex noote ndax kujje du bokkal jëkkër rek ngay wujjeel ndax ay jigéen dana wujjante ay peccorgo peccorgo mooy sa yow mi mag am jabar sarak ñëw takk jabar nekk ci biir kër gi soxnaam ak sa soxna ki mag ki ñaar jigéen ay peccorgo lañu ñooñu dañuy wujjee waaye liñ la mën a wax ci wujjee rek comme tempi temu jigéen la waaw li ñu mën a wax ci wujje rek mooy ñoo xam daal ñoo bokk boroom kër bokk wërsëg war a àndandoo war a defar ba mu baax waaw loolu mooy wujje su ko defee bu ñu àndee defar ba mu baax rek boroom këram fu mu mën a dem xelam dal fu mu mën a dem du xalaat këram waaye xam nga mënoo di yor say soxna ñu nekk ci kër gi ñuy wujjante di xuloo ko xeexoo ko reen responsable kan la góor ga leen fa indi kon su ko defee nañu ñaan yàlla bu ñuy boole ay soxna ñu wal ñu soxna yu déggoo yu xam àdduna mën a defar ba mu baax noppal seen borom kër wasalaamaaleykum wa rahmatullah kaddu yi am na solo lool ñu ngi lay jaajëfal ñu ngi jaajëfal suñu papa boobu nit nañ ko fii ndax defe naa ne nekk na nit koo xamante ne nii ku oyof la nit ko baax ba heure bu ñu ñëwee ci moom rek am li ñu bëgg ci moom dañ koy ñaanal yàlla yàggal ko fi bu baax a baax rek may ko wér ndaxte defe naa ne loolu rek moo am solo ba tax na tonton dégg nga suñu papa bi li mu wax ci wujje nee na wujj bu njëkk ba liñ koy def mooy sa moroom morom togg lu neex nga togg sa morom taaj ay ginaar nga taaj ginaar mais defe naa ne jamono boobu ak léegi si dafa xaw a wuute ndax defe naa ne ginaaru 4000 boo ko bëggee wujjeeg sa morom dana xaw a doy waar de. waaw waaw na neex seen côté rek yéen waaw. mënuñu mm-hmm. koo dagg kay. soxna si benn soxna la woon soxna si bi mu bi mu bi mu bi mu amee problème ak borom kër bi. ndax dafa yoroon nii borom kër bi dafa jubóog loolu ñaareel. bi mu amee problème moom dafa ci benn sëriñ ci benn sëriñ ba day xam-xam mu ne ko man de damaa am xam-xam sama borom kër bi faaletu ma toog toog mu daanaka sama lekk di ko toog. mu ne ko jëndal dama nga jëndal dem jënd si marché bi jënd ñetti ganaar ci bés bi kër gi yëkkat ganaar jox na na ko toog boobu ñor xom mhm. ko defee nag commencé nag ñu commencé ñoom ñaar jubóo ko loolu ñuy ànd neexoo mu dem sëriñ bu nekk ñu wax léegi ma defal nga sama jëkkër bi topp mu ne ko mën a daara ñu boo ko jëkkee woon bu nekk am ngeen jàmm dig nay. muy nekk loo xam ne góor gi wax mu nekk lu am solo. mooy li tax ñaan Wolof Njaay ñoo xam jar naa bàyyi si biir. parce que ñoom dañoo xam démb xam tey. xam ni ñoom fonctionné say bu njëkk. xam tey ñu ñëw tey léegi. xam kii di ñëw. maanaam ñun dañoo wàcc suñu ànd. ndax Wolof Njaay dafa wax ni ànd boo dem fekk ko borom topp. ñun dañoo wàcc suñu ànd xamuñu xamuñu ànd bi ñuy topp. xale yi léegi. Euh, royukaay yi moo wuute. Mhm. maanaam dañoo royatul lañ fekkoon démb. Mhm. dañuy fekk si nasaraan si ak euh, aada ak cosaan yi nga xam ne tubaab yi ñoom ñoo ko yor ñu roy si ñoom maanaam ñoom dañoo coppee dañu coppee tiit yow yaay. Mhm. da nga naan toog tiit da nga naan tiit wala ngay jooy beru jooy ñu ne looy jooy. man damaa xam ne sama bopp ndax dama gis gis moom loo xam nan laay def te nan laa koy sëral. muy fleur boobu nekkoon si yow mais loolu dañ ko dañ ko bàyyi léegi loolu gisutoo benn yaay bu ko bu koy def gisutoo kenn ku koy def sànq da nga ne woon doomu jigéen jàngaan boobu day jaay roy kaay mhm. si noonu lañu war a roy mhm. muy sëyu dëkk yi euh, son layaa wax na ko léegi mu ne mu ne mu ne yaay yi ñoom ñoo war a jàngal seen doom yi ñuy sëy mhm. effectivement wax na dëgg mais amatuñ jot gis nga bisu mariage ba xam nga yaay yi dañuy ndax boobu nga mën a egsi. Mhm. ndax yéen bi ñëw na. ki ñeme ndeyale ndax jox nañ ma ko. Mhm. toog di seen dootam. Mhm. ci sa xol la gaa ma Samba jaaree la ak nañ daan defee ak si sëy. barke boobu moo moo tax jafe-jafe sëy bi gën a law gën a bari. kujjee dañ ko fekkoon démb. yàlla Tuubaa nga xam ne tey ñaareel bi soxna la woon. ci Maam Mor Anta Sali dundam yëpp fanweeri at waaye dundam yëpp da cee da da da da euh, ak doon sëyee waa ñu euh, góor yàlla bu baax boobu ba yàlla may ko moom ci la jigéen ñooñu ñoom maanaam dañoo am dañoo am ay royukaay te duñ jéggaan ni feneen dañ koy roy fi ñi fi nekk moom fa wàdd leen moom asu jàngal soxna jaaratullaa ci nga ñooñu mais mais jigéen ñi ñu ngi roy ci ñu ñu war a roy de xëy na roy bi moo des rek mais ci cadre bi tamit ku ci mel ne soxna Jaara sa amatul mais góor gu mel ni Maam Mor tamit amatul. Ah. Mhm. waaw waaw <laughs> ndax defe naa ne góor kilifa la war a doon mais góor boo xam ne def day mel melokaan boo xam ne ndaxte mm-hmm. mag ñu njëkk ñi mm-hmm. dinañ yore neneen seen soxna yi mais xale yu góor léegi sii ak kilifa yi léegi gis nga leen mm-hmm. taluñu dara am na ci kilifa yoo xam ne ñu ngi seen biir kër xamuñu ne ñuy jullee am na kilifa yoo xam ne mënuñu julli sangu farata am na kilifa yoo xam ne yor nañ ay soxna mais xamuñu nan la ñu war a yoree soxna te soxna yor ko dafa nekk loo xam ne dafa mm-hmm. yomb ci wax ji mais dafa jafe ci yor-yor bi. Mm-hmm. ndax benn mm-hmm. waaw ndaxte boo yoree say soxna ci biir kër gi am nga noo war a doxalee ak ñoom mais góor ñi léegi dañoo jiital intérêt ba mu ëpp intérêt bi mooy fi gën a neex ay weñ lañu fu dal lañ ñu tooy fa ñaareelu parti bi dañ siy ñëw léegi ko daal defee mais <laughs> gis nga Badou déedéet sax bi laa yow suñu xarit wax sa dëgg la. nga lan moo tax nañ maam moo comme ni ko waxee ni nga amatul. jigéen bi ne. yow yaa sañ a dogal a toog ne. naa yàlla a fii may sëy naa fi di wàll yi. dëgg la xam nga jigéen lan moo koy may lu baax takk der bu baax. lu baax. mooy ak nangu. bañ ne liggéeyum ndey liggéeyum ndey. mais nangu na ci kaw sa xol neex de kii mënul nangu fi fekk ngay am xol bu naqadi de xam nga sa mënoo sa xol mënul di naqadi ba pare mi ngi mel ne tey ñu togg loola dina dugal waañ par force togg forcé la. demal nga togg. pourtant di nga togg de mais sa xol neexu may la ngay togg lu baax. parce que da naan comme dañ ma koo forcé bëgguma koo def rek du leen ko defal mu baax dinaa leen ko defal ma ko def mu baax nangu na fekk bu sa seddee rek da ngay nangu tax man la lépp rek ci góor nit aussi tamit dañ ci am part de responsabilité buñ jàppalee jigéen am sa soxna jàppale ko rek naa parce que doom bi du jigéen di kese moo ko bokk buñ nee doomu dinañu doomu diw buñ ko ne yow ko kuy sa ko ne noo sant sa sant papa lay joxe kon déjà man dama contre lépp ñu jël ko jox ko jigéen parce que jigéen bi kese indilul boppam doom moo ko góor ki la kon ñoom ñaan ñëpp ñoo ci am part kenn ku ne dañ ci war a bay sawaar pour ngeen ànd jur njaboot gu baax man loolu laa gëm. dëgg loolu nga gëm sax nag euh, mooy lépp. Mhm. ba tax na suñu nee nangu. nangu dafa bëri façon. Mhm. tey euh, bu ñu nee jigéen buy sëy dangaa war a nangu dañuy jàpp ne nangu ba. Mhm. baleel. toggal fóotal. déedéet maa ngi jéggalu nag ci wax ji. ndax leeral moo demee noonu. mais gis nga nangu bi. dafa am ci côté bu mu nekk ndax ndeyaa da ngay gis jeeg boo xam ne day am xew mhm. goro ya gër wër ko mhm. njëkk ya wër ko waa koñ mhm. ba yuuxaloo di tàggatoo fekk jëkkër ja xol ba neexul benn mooy ca biir néeg ba ndax dañ ne doomu digg lal dafa am doomu njëlabu lal am doomu buntu la am kon defe naa ne nangu bi ci foofu la ndax dafa am waajoo xam ne dafa yoroon ñetti jabar kenn ka xaw a doy waar ba mel ne mamareem kenn ka am yar loolu am teggin ka ca des baax ca biir ba baax ca yaram ba mais kenn ka nga xam ne moo doy waar moom la gën a teg fenn te ay doomam ñoo gën a tekki ñu laaj waa ji lii moom nu mu demee nii kii ni mu baaxee kii nga xam ne dalay toggal lu neex ngay sol lu baax mun leen ah dafa am foo xamante ne nii nag mooy frontière ba neen mën naa laax ne la su doon avion tey ma ne la mooy kii ba nuñ ko ci waxee sax euh, bii ba ngay dagg pour yéeg kon defe naa ne jigéen dangay nangu sa borom kër dangay oyof dangay nangu nooy nepp damaa dégg benn waaraatekat muy wax ne jigéen borom këram waru koo njëkk sax laal foo toll yow yaa war di yombalal sa borom kër di ko laal laal boobu lan lay indi tey nday tey parrain saa yi nga gis waajoo xam ne day jàng ba doyal am diplôme bu nekk mais pour mu am liggéey problème lay doon ndax lan waajuram dafa xañ boppam borom këram di ko ko kangatloo ba ba mu cay jot sax xol ba naqare la ci jotee kon defe naa ne sëy tamit foofu la mais bu dee togg ak yàq kase su la neexee am na ñoo xam ne ñu ngi sëy te togguñu foo leen fekk ñu ngi pose xef pose wee dugguñu ci biir waañ bi suñu sox dañuy commandé ñu indi leen te seen jëkkër nga am bànneex ñoom ñaan moo kii fu mu ko dugal moo kii xanaa dakaa def nangam te déedéet gis nga góor bakkanam la yor moo ko xale ñoo yem ku ko neexal rek yaaka moom deuxième partie bi nag dañuy daal di dugg léegi si nag mais nag dañ koy def ci njëkk yi ak goro yi tey lan ngay wax goro yi nga xam ne dañuy wujj ak seen doom seen goro yi loolu mhm. ko wax nee la goro yi si bare bare bare bare dañuy mujj ak seen jabar yi mhm. yaakaar naa ni warul mhm. ku jëm mënul weesu mhm. yow sa jabari doom nga teg ko bët c'est-à-dire su ma ne ko teg ko bët mooy li ko sa doom di defal yow da nga bëgg sa doom di la defal yaay moo jur doom moo ko jur moo am juróom weer jur ko waaye kenn ku ne sa part soo fexee ba sa doom am ci soxna ko war a garder soxna bu sax bàyyi soxnaam di souffrir sa part nag yow sa diggante ak sa doom sa sa jabar jabar jabar doom ñoom yoonam si kooku dam yow mën koo jël sa doom mooy bu fekkee ni yow da bëgg jël sa part bëgg jël sa jabar paaru jabaru doom da nga bëgg a sa say te yéen te gor goro na ñu def goro yu si bare bare bare bare mooy seen parti bi boo nag boo nekkee koo xam ne dafa immigré ji tukki. nga yónnee sa jabar. xëy na peut-être semaine bu na cinquante mille wala weer bu na cinquante mille. yow mu la yónnee cinquante mille deux cent yéen ñaar ñëpp. yónnee yaayam cinquante yónnee jabaram mais yow doo xool loolu. sa cinquante yooyu mu la yónnee xeet nga ko. léegi nag wàññi sa cinquante mille jabar dina ko am. joxal sa jabar vingt cinq mille. wala soo am na ni ko. cent mille yëpp envoyé ma ko. mën naa xool lu ma jox sa jabar. korob baax def noonu. bu baax normalement sa doom bu yëkkatee jabaram cinquante mille nekk pour ay bëgg-bëggam si jamono ju metti jii mhm. mu jox sa doom euh, jabaram cinquante mille mhm. yow mu jox la cinquante mille mhm. waroon nga di ko fekk bu baax na ne sa doom sa jabar ji kat ni nga ko jox ko daa bëri ma yokkal ko li ñu koy jox bu dee ko baax waaye boobu la bu yées moom dafay bëgg di wujje ak jabar doom te ku jegooku mhm. mooy dem finalement ñaari xale yu jigéen ñi tas yëpp yu si bëree bëree bëri dañu am am problème sama jëkk mhm. sama goro laa am problème mhm. wala sama njëkk yi si kër gi laa am problème ku sëy ba saaraan ba ñëw amatu fu mu jëm na na na na na nag jigéen ñi nekk si kër gi nag jigéen bi muñu kaayam fees parce que tamit muñ dafa am fu mu yem xëy na yàlla suñu borom nañ da ngeen di muñ mhm. waaye muñ mhm. dafa am foo xam ne foo àgg rek doo fa dem mhm. da sës da fit jigéen ñu si bari nag ni ñuy soxla ak seen i njëkk ak seen i goro mooy fit dañuy dem bu ñaag dañuy fit nekk loo xam ne nii loolu la gis si diggante njëkke yi ak goro yi njëkke dafa war a taataan jabari magam wala jabari lakkam yéesu ko bi comme yow sëyi ñëw nga tas sab say toog mhm. wala amugoo borom kër mhm. wala sa borom kër moo lay fekk si mhm. kon jàppal ni yow kii say si kër yaa ko war a teete defaral ko boo ko mënee toggale sax nga togg ba mën a jël jël comme moom nga jël jël comme moom di ko jàppale si toog dëgg la xam nga sëyu Sénégal li tax mu metti man Sénégal laa ne moom laa xam kon moom laa mën a jël exemple mais dañ lay muur nga wàcc ci guddi gi sëy si boo xëyee ceytal ngoon gi looy def dañ naan la raamal jébbalu ci sa borom kër toroxal nañ la nga raam ñëw jébbalu dëgg la ndax dangaa ñëw sa si pour wut lu baax nga pare foofu xëyu si suba ga ñun la lan jëlal njël nga togg nga jël njël dem togg tibbal ku ne nga pare ñun la dugub ji nga nattee woon démb sa loxo yaa koy dëbb ci sa loxo ba mu megg kon ñu ngi lay xam ne ni fii dara lu neex amu fi nga parewaat ca suba ga ñun la fóotal fóot bi mooy say mbokki jëkkër rek ku ne jël garam juugal la ba mu wurëy nga yendoo fóot suba ba ngoon ci doomu jàmbur. am na am na ñu koy def ba tey am na ñoo xam ne ah, ñu ngi topp seen aada. lëndëmee dafa am ñu koy def waaw am na ñu koy def. am na koy def waaw. gis nga loolu ngay def noonu noonu eh. dikk ci kër gi def ko. loolu mooy sëy. Mhm. gis nga boo ko gisee nag dangay day mel ne lu xaw a doy waar. Mhm. mais pour wan ne la sëy bi ñëpp ci lañ bokk. Mhm. xam nga daf dañ dañoo am benn mère euh, bu nekk ak goroom. goro bi di xew ñu ne ko kaay woyal ko kaay taasul ko maire bi ne bàyyi leen ba ma toog ñu ne ko kaay taasul ko mu ne pat maire bi ñu forcé ko ba mu ñëw maire ne mhm. mag dégg na euh, casas cus saaf mag gisul yëgul mag dégg na kur feñ tëll mag yëgul tinul maanaam mag dégg na gorom saaf ay ginaaram ci biir néegam di sàq mi mhm. mag gisul mais mag dégg na tamit kur feñ dal mag yëgul mhm. kon dañ lay wane ne boo toggee da war a bokk ak ñëpp bu neexee ndax jeeg sëy na ci kër tas di bëgg a ñibbi wala mu am problème ak jëkkëram gorom ne ko kaay mhm. ñëw ne doomam ju góor kii bu naree génn kër gi yaay génn ba ma ko saaga ko mhm. teg gorom day fekk gorom boobu day sëy ak jëkkëram sëy ak mhm. ay njëkkeen mais sëy bi dafay am fu mu yem yow mi nga xam ne dangaa sëy ba ñëw ci kër gi toog mhm. say say rakk say say sàkk ñoo fi nekk wala say mag mhm. seeni naa fa nekk jàppale leen te yàlla tax mhm. su aajowoo bale baleel toggal leen defal leen mais bu jàpp ne kii sëy ci kër war a raxas duus moo war a bale moo war a defal ndékki loolu su yàggee am jaam lay doon ndax yow yaa ngi ci kër nga def ni say tànk tegale suy ñëw fa beere sax da nga naan nii puus bu paree kaay leen añ kaay leen nangam gis nga loolu def naa ne xolu yërmande mënu ko kon nañuy góorgóorlu te jàppalante oyofal jeeg ci seen sëy yi ndax yaa tey boo ñu doon wax ci njëkk yi nga xam xam doy nañu waar doy waar boo xam ne dañuy nekk teg seen euh, jabar yi so mhm. jël seen téléphone tamit tekki di woo seen i càmm yi mhm. sa jabar nangam mhm. nangam sangam am na ci yoo xam ne sax njëkk yi ci gi it sëy ba tas ñoo seen sëyu càmmiñ yooyu noonu loolu am na maam du fi jeex bari du fi jeex surtout maa njëkk yi nga xam dañuy sëy ba tas ñu nekk seen kër càmmiñ yi ñoo tas seen kër càmmiñ yi mais yaakaar naa loo bëggul ko la ko def gis nga fii loo fi leble dañ la koy fay gis nga njëkkee boobu même bu sëyee ba tas loo ko jële këram neexul soit dañ dee nañu picc yàlla ma yàlla yàlla nañ ma nañ ma baal ci kàddu bi nee neen picc bu gol picc bu lakk ci taat moroom lay bëgg xam nga ñoom la leen fa jëlee euh, bu ñu sañoon dañ fay toog mais le fait que jóge nañ fa bu ñu ñëwee léegi dañuy bëgg moroom maanaam li ñu dund seen néegu sëy la ñuy bëgg Euh, répété fayoo ko ci seen i jabaru frère te yaakaar naa ni bu ëllëg da ngay amaat borom kër da ngay dem ñi ak te man booy leble da leble loo xamante ni bëgg nga buñ la ko fayee mu neex la ndax bu ñu sëy waatee bëgguñu dundaat loolu ñu dund mais jigéen boo nee nañu femme malheur de femme jigéen boo gis lu ko mettre jigéen moo koy teg soit bu dee wujje jigéen moo ko koy teg bu dee sonn ci sëy gore yi ñuy wax particulièrement jigéen ñi la ñuy wax gore góor yi amuñu problème en la kon ñun jigéen ñi dañoo war a xoolaat suñu toogaay yëpp sa yi naqat yi divorce yi bari lépp lépp lépp ñun jigéen ñoo koy tegante suñu biir jigéen mooy def moroomam lu bon mooy liggéey moroomam mooy yàq doomu moroomam góor ñi amuñu sax jot boobu bu dee dëgg la ñuy wax ñun ñoo war a xoolaat suñu jikkoo non am na góor ñoo xamante ni duñu yàq jigéen dañuy yàq góor ñi lu ñu yàq non góor ñi dañuy yàq mais bu fekkente ni ci cadre sëy la ak defante xam nga góor defante ak jigéen boo kon bariwul mais jigéen ñi ñoom seen biir ñooy defante yaa ngi wax déjà ci cadre njëkkee lañ ne kon xam nga njëkkee ñoo ñëw yàq kon xam nga góor yàqul mais waa ankañ ci kaw mu nekk góor boo xam dafa faible parce que sa sœur bu ñëwee waroo ko may may loo xam droit boo xamante ni dëkk bu ëpp boo xam da koy am si say soxna wala ci sa jabar ba di ko conditionné wala mu koy def li mu li mu koy def parce que yow bu ñëwee yow ku góor ki yow yaay nekk kilifa kilifaam nekk sa kilifa soxna ñoom ñaan ñëpp yaay seen kilifa même donte sa sœur moo la mag wala yaa ko mag yow yaay seen kilifa kon yow yaa war a am fulla goo xamante ne am comportement boo xamante ne am foo teg sa soxna tamit boo xamante ne yow sa sœur ak sa yaay ñëpp ñoom tamit danañ xam ni kii ki ko fi indi fonk na ko jox na ko cër kon ni muy doxalee ak moom ñun tamit noonu la ñu war a doxalee ak moom kenn ku ne rôle boo am ci moom seen diggante la yéen ñaar sa jabar sa sa diggante moom sa diggante la sa yaay aussi de même sa sœur aussi de kenn ku ne yem fi nga war a yem ak sa morom pour man bu ñu defee noonu rek kër yi dina am jàmm. macha allah bu ñu defee noonu kër yi dina am jàmm mais def googu moo ci daa doodul am. Uh-huh. ndaxte da ngay sëy ba tas ñëw teg sa euh, jabar bët. bu takkee or nga naa ko takk te moo fay sëy moo fa sonn moom la jëkkëram génn wala di liggéey ji mm-hmm. yow dangaa jógee fa nga nekkoon ñëw mm-hmm. toog mm-hmm. ku ci mel ne man ak keneen ak keneen yëpp ba tax na ku ci ñëw rek jéemal toog man yàlla xam na ne jéemumaa fat sama benn jabaru càmmi ndax jabaru càmmi dañoo baax ku ci mel ne awa ak fandaw maa koy ziar bu baax baax ñuy kenn ñoo xam ne reetaan rek la ñu xam jàmm kaf te man tamit damaa tegul kenn dara ndax bal bëgguma kenn teg ma dara kon du ma daal laa bëgg moom ku ma ko tegal foo xam te ne nii fu kawe la ndax kooku dafay nekk ba dara dul dara fekkee fi taataawu ndox yi fekkee fi sàkket bi fekkee fi ñala ngi fekkee fi laaxu daqaar yi kon kooku defe naa ne kayita yow ku la tegul fenn man mii maa fay jël teg la fa ba tax na da ngay gis euh, njëkk loo xam ne day nekk ci kër ndax man gis naa ci boo xam ne sama bët bi ma ko may du ma tudd tur nag mais maa gis koo xam ne nii dafa tukki jabaram nekk ci kër gi ak rakkam bu jigéen ak euh, yaayam am ku góor kuy dugg ci kër gi guddi gu jot ndaw sax ba mu ko gisee nu mu waroon def yaay man de guddi gu jot damaa gis kuy dugg ci biir kër gi yaay ja ne ko ah noppil wala nangam wala mu ñëw ci jabaru rakkam ne ko waayew man guddi gu jot damay gis góor gu fi dugg loolu nu mu demee su dee jabar ja nu muy def du moytu mais dafa woo càmmiñ la ne sa jabar day farantu guddi gu jot góor lay fanaanoo càmmiñ la daal di jël bëtam teg ko ci waaju mel ne Babacar Diop mel ne ko demal ma sama kër guddi gu jot del toog ca buntu kër ga di ma xoola kuy dugg kuy génn di ko envoyé ay 10 000 ak 5 000 francs waa waaja ñëw ca buntu kër ga toog mais nag bañ demee ba mbir ma feeñ mu nga feeñee ca yaay ja muy goro ba xale bu góor ba di génnee ca goro ba ca yaay xale bu góor ba léegi fu muy mujjee <laughs> kan moo tas kër ga kon defe naa ne dañuy rafetal mbir mi <laughs> te ku si nekk rek nga yéene sa morom jàmm ndax toujours yuuxu jub fuñ ko foogee mhm. dëgg la de moo mhm. di nga gis ni teg ko sob nga naan kii day taxawaalu kii day def lu bon mhm. kii day lii fekk naa soo xamoon moo nekkul li gën. la xam nga da doon lañ xëy na yaay ji ne ko sa yoon sa ñaaw njort si. fekk ne boo xamante boppam yaayam moo nekk si lu ko neexul. Mhm. ba tax muy wat ba tax lañ bëgg baax. Mhm. dañ mhm. bëgg a jënd. kooku moom ñu dañ koy jara sax. kenn bëggul lu ne ngay yëndu wala ngay lañ lépp lu ci fekk rek yaa ngi koy sax. parce que l'islam su nangu ko def loolu nag fekkee na loolu ndax mhm. gis ni jabaram jii kat mhm. moom mooy xale góor bii fi ñëw jabaram jii gis noonu mhm. ndax net bi moom ci kër fii kat bu fi ñëwati ndax kii jabar jàmbur naa loolu mooy gën ngay wax loo xam ne ni tey dara wóorul si ba mbir ma dal sa waajur bu jigéen loolu moom doy na waar maam xam naa ni xam yëgoon du ko def euh, moo tax waaw billaay moo tax dañuy wax toujours dafe dafa wax sànq ne góor ñi yàq ñu kenn góor ñi yàq ñu kenn ci sëy mhm. mais pare saa ñu yàq nit mhm. ndax wujj mu ngi yeb moromam xam nga lu mu ko yebee ca la ko waaj a wax mhm. ci guddi ga ndaxte da gis koo xam te ne nii yàlla da koy may fu mu tëlee ndax ku ne am nga foo mënee mhm. góor ñi ku ne am nga foo mënee <laughs> ku ne am nga ne yaa bàyyi sa ngay jaay <laughs> ndax góor da gis sa morom oto nga bëgg ko te am da sa morom tabax kër nga bëgg ko doo am mais jigéen bu nekk tamit am nga loo <laughs> ndey bàyyi ma waaye bàyyi sa ngay taay yi am nga loo ëpple sa moroom ba tax na soo ñëwee sa sa soxna nga ne ko kii de nangam wala nangam ak sàngam yaa ko dàqali yaa ko dàqali xam nga loolu tamit day doy waar mais goro yi nañuy bàyyi xel mm-hmm. tax jigéen bi bàyyi yaayam bàyyi papaam ñëw ci kër gi di sëy xam nga lu mu am ci këram xam bànneexam mhm. bànneexam boobu ci diir bu gàtt la mhm. carrière bu gàtt la ndax jéeg bi sëy si ci kër gi mhm. fanweeri at la fay am bu ñaanee yàlla yàlla suturaal ko mu am fa doom noppaliku yow miy goro bi xam nga loo loo moom yaay ndékki laa ngi nii yaay kaay ma fuddën la yaay toog ci sa wet neexal ak nax naxal mais bu fekkee da bëgg a ñëw jël dépense ndaw si téye ko jël ceeb bi yaa koy natal ceeb yaa koy natal diwlin xamul dara ci kër gi kooku xolam day laaj mhm. rawatina koo xam ne gisul jëkkëram mhm. donte que mu ngi gis jëkkëram sax jëkkëram di am as wecce di ko jox ngor mhm. ngoreel ba génnee ab 100 francs wala dara ne ko ah am maa la doole lii te gis nga nag Mhm. ku nekk xam nga ki gën ci yow ku nekk xam nga ki baax ci yow kon yéen suñuy yaay ngeen suñuy maam ngeen suñuy lépp ngeen mhm. yéen yéen ñu mën a dëgëral suñu sëy kon jàppale lañu ci baax a baax a baax mhm. tey yaa boo ñu doon wax li nga xamante ne nii moom la jeeg war a gën a toogee ci këram ba wujje du ko sonal wala wujje du tax muy def lu bon tey nan la koy toogee ah, xanaa mu muñ màmmare mu diñ mu muñ bu dee ku fa jiitu nga muñ parce que muñ dafa metti nee nañ la nee nañ lu ñuy muñ loo nit rek nekk na loo xamante ni neexul loolu daal laa xam ni jigéen bu ko toogee ci biir këram mu gumba taxlu parce que tamit neexul mais ba pare aussi jigéen ñi nañ jéem a wut lu ñuy def parce que yaakaar naa soo amee occupation boo xëyee am looy liggéey wala am looy def doo tal yéen nii que ñiital wujje ak defante euh, mooy da nga xam ne am jot dañuy nekk ci kër 24 heures sur nit ki boo dul gisanteeg moom nee nañ yootante moo dàq lépp loo gis mm-hmm. mais fekkente nit ki a ngi nekk chaque jour muy def ngay gis muy wax ngay gis bu yàggee sax dama yaakaar ne naa wujje man jigéen ñi sax ñoo moomoon parce que man man bokk man mënuma yéen nii bu yàggee sax yàlla boo dof yéen defante yi ñuy def nii bu yàggee loolu mooy nekk sa esprit te loolu loolu amul benn sens parce que yow góor gi tax nga koy def moom mi ngi xëy di dem di daani dool di lu mu leen jox yéen aussi bu ngeen xëyee jéem leen def noonu su ko defee kenn du gisante ak sa morom wala kenn du tal sa defante yéen nii parce que xale yi tamit aussi ay kii lañu ñun seen exemple lañ ci ñun la ñuy xool nu ñu gis seen yaay di ko comporté woo rek ñoom tamit bu ñu màggee noonu la ñuy comporté ñu bàyyi ci xel bu baax ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ba tax na wujju du dara gis nga wujju gën a muus la rek ak gën a dal gis nga soo dalee tey yaa dàq wujje dangay gis jeeg boo xam ne day fanaanoo xeex ak jëkkëram rayanteeg moom su yeewoo sangu ba set kereñoo ay bëtam ba mu rafet mhm. xeeñ parfum bu neex génn socc ay bëñam di xaaxataay lu waaye wax mu dugg ca nga naan kii de lam fanaanoo biig fekk na loo fanaanoo na musiba mais tërëwul day génn ak daal ndax gis nga bëñ ak làmmiñ a dëkk te dañuy réeroo man gisoon naa boo xamante ne guddi gi da koy sax mu dem ci dibitëri yi daal di for ay këyit te def ko ci néegam bu xëyee bale ko génne te fekk na lekku sax keccax bay lekk yàppam <laughs> mais soo nawe bu jëm rek da koy daa dugal ci loolu noonu kon tax na lépp <laughs> <laughs> kenn mënu ko wax sama jigéen daal foofu la war a jëm man. lépp rek déedéet. kooku lekkul sax ginaar lekkul dara mais pour bëgg wax gu jëm ne ko sama jëkkër indi na ma yàpp reer naa ko ci guddi gi xëy bale këyit yi su ko defee lekku ko mais kee day jàpp ne sama jëkkër ka su ayee ci kee jëndal ko dibi te man su ayee ci man du ma jox dara dèjà day ñëw tere ko boppam ne ko fa ngay ka ngay jox yàpp demal ci moom kon defe naa ne kooku sànku na tey tonton boo ñu doon ñëwal tey ci solution yi tey la ngeen ci mën a leeral waaw Seydou am na solution ñu toll nii am na am na ay yu bari ñu ci mën a wax ci jamono ñu toll nii bi si jiitu moom mooy ñu delluwaat cosaan xam naa nag du yomb du yomb nag waaye nag euh, delluwaat cosaan lu baax la te benn bi mooy ñu respecté sëy respecté gi mooy bu ñu koy takk sa jàkka ja ndax jigéen ñu si baree baree bari sëy léegi takku jàkka ji sax farataal lañ ko ndax ku ci def jàkka jàkka sax da nga naan ah ma de takku jàkka rek lay def xewaguma te pourtant takku jàkk mooy farata bi bu ñu ko deful sëy bi du am mhm. fokk ñu respecté lu ni mel mhm. respecté can can dafa nekk lu am solo mhm. si nit yi nga buñ toogee di maye li ñu jëkk laaj imam bi gannaaw bu ñu laajee ndax ay jullit lañ gannaaw bi ñu laajee ndax Euh, am euh, mosul am borom këram mas naa am borom kër ndax la ñuy bañ ñi bu fekkoon dafa am ndax ndax yedd ji mag mat na lañ lay wax fekk mas naa am borom kër yëpp dañ la koy mm, mm. te jamono ji mooy li doon wax nii léegi rek danaa si dikkaat danaa arrière ma doon wax nii léegi rek gis nga na jigéen ñoo xam ne dañuy tas gannaaw suba bu gannaaw war suba uh-huh, am na mm-hmm. mais gis nga am na góor ñu soxor ñu iñaan ñoo xam ne tamit dañuy am ak yow problème bàyyi la nga ñibbi seen kër te duñu la may baat di la ko ñe waa si si loolu moom foo ko gis bëggeel bëggeel des rek loolu moom bëggeel moo fa des <laughs> li nga wax dëgg la loolu ki seet na ko sax nga am na jigéen ñoo xam ne nii dañ leen di may baat ñetti ñëpp bañ leen di may baat sax am na ku ñu waxanteel bu takk gis nga ka di may ku ñu luyee lay doon maanaam marabu ku ñu luyee mën a doon sax ma ne imam ndax ñu en général dañ naan maye ñu si bëri bëri ki ñu ci xam mooy imam nañu woo imam mais mën a doon benn mara bu nekk ci koñ bi mën a doon benn waa ji bu mel ne man rek nekk naa si koñ bi xam naa alif ba tuuti rek tuuti rek xam naa tuuti lu ma ci xam ñu ne nañ ko luyee jox ko ñaar téeméer ñett téeméer mooy takk say bi lijjanti woo ba xam yedd ja yedd ja mat na wan na idda ja mat na wala matul lijjanti woo loolu tas na tas sëyu jigéen xam nga tas si niñ ko niñ koy niñ koy xame ñun mooy jigéen nga tiim ko fase ko ñu ñaan la bat mu am seede nga wut seede ne fase naa ko ndax jigéen mën nga koo tas nii maanaam man mën na maa fase léegi sama soxna mara détail yi war lool waaw du ma ko mara détail ñaan du ko yàlla voilà dama bañ a jël exemple si keneen rek mu ne ma jël sama bopp yàlla boo xam ah. ah voilà. utal bu amee. nga ne ko fas naa tey par bu wóor ne fas taxaw ni kii fase wu ma. mais nag dégg naa boole ba. waaw même bu matul ñetti yoon sax ndax nit dina mer fase jabaram dama ni bu fekkee gi ñëw ne dëggal waxoon ne fase woo mhm. kan mooy taxaw ni seede ne fase bi am na mhm. amul mais bu même bu ñetti yoon sax kenn mënul taxaw ni am na koy seede mhm. parce que yaa moom dongal si bokk nga ne ko fase naa ko fekk ko seede du yaayam du bàyyam du keneen keneen taxu fa di ko seede bu fekkee ne dëggal ngeen seen bopp ñu wax la boobu amat mhm. ndax yow de ah kii de ñëw na mhm. ko may baat. Mhm. nga dëggal ne may na wax nga wax ju am solo léegi loo xamante ne nii dara mënu koo dindi te defe naa ne ku ci nekk ku ne soo meree bàyyil xel li ngay wax bu baax a baax jël sóoraale ndax dañ ne góor. ci faaru càmbañam lañu jëlee jigéen te faar fan la nekk cër yépp amul lu ko téye lu dul làmmiñ ak faar tey say loxo dañ kaa teg ci say faar ba tax na yàlla bëgg ngeen téye ñu moo tax mu jël ko génnee ñu bindee ñu foofu noonu kon ku ci nekk soxna siñ la jox rek téye bu baax a baax a baax jigéen dafa doy waar mm-hmm. day mer wax lu ko neex defaloo wax mais su waxee dalal ko ndax yow yaay góor yaay papaam yaay nijaayam yaay sangam yaay léppam mais su fekkente ne yow góor gi bu jabar ji meree wax lu ko neex nga gën a wax lu gën a doy waar loolu boobu sëy du fa am kon nañuy jàppalante sëy yu bëree ngi tas ba pare ñuy tas ëlbatiku waat di gisante ji waat feneen lu koy a ku ci nekk doyalu ci sa morom te topp nga sa mer kon nañuy bàyyi xel bu baax a baax te xam ne ku bàyyi jigéen jigéen ngay rek mais bàyyi góor tamit ci góor ngay naa bañ koy ree dajee koy xaaxat léegi daal di jox la kàddu gi rek nga daal di nuyu ñi nga bëgg a nuyu jaajëfal mbokk yi ñu joxante rendez-vous incha allah jërëjëf euh, maam ngi lay bu baax xanaa bi benn message bi ñuy joxee rek mooy mm-hmm. sëy bokk wër la ni ko mag ñu waxee il faut ñu roy si li nga xam ni moom la maam yi bàyyi woon euh, encore une fois suñu borom li ñuy wax ñu takki soxna dañuy ñaar ñett ñeent man mii laa wax def incha allah. kay doo ko def yow moom doo ko def moom. loolu loolu def léegi nag li si mooy muñ. islaay muñ. dañ koy laloo si sëy. sëy ñaari kaasu kaasu kaani ak kaasu lenn. parfois da lekk lem ba nga yaakaar ni lem gi rek ngay continuer. bu baax mu ñëw rek nga lekk kaani parce que doon nga lekk lem. Mhm. ndax boo muñee rek. Mhm. lem gi mën naa ñëwaat. Mhm. say noonu ndegu say noonu la. leen jaajëfal wax dëgg yàlla émission a wuy muy aada la. ko fekk fi lañ koy bàyyi. ndax ñun ñëpp. foofu lañ jaar ndax yàlla suñu borom moo ko daganal suñu jaan yi. di ko def. kon ñu leen di jaajëfal maa ma leen di jaajëfal. soxna Ndaya bu baax. di ko di bu baax moom itam. Mhm. macha allah. Mhm. na delloo ziar mhm. bi. Euh, moom mu yor caméra yi ba ñëpp mën ñu seetaan. ak ñu doon seetaan ñëpp. TV ñun ñëpp. ak Leral point net ñu ngi siifu télé bu baax a baax macha allah muy télé bu am solo. yàlla jëm kanam. amiin amiin jërëjëf. di nuyu waa Ndam nag di nuyu waa rajo Ndingler FM 103.4. ñu ngi leen di jaajëfal ñoom xam ne ñoom ñëpp. wax dëgg yàlla maa ngi leen di jaajëfal bu baax a mm-hmm. ndaxte ku la gis ku nekk li bi moo nekk ci kanam gi ba tax na li ñuy gis ci kanam gi doy na waar ndaxte baax na. Mm-hmm. am nga yar am nga tekki bi nga ñëw fi ba léegi jàmm rek la ñu gis ci mm-hmm. yow. kàpp nañu waxtaan kon dañ lay ñaanal rek. gudd fan wér gi yaram yàlla sàmm la suturaal la sàmm la njaboot gi ak soxna si bu baax a baax a baax ndax yaa lan ngay tàggatoo. waa maam Marème avant tout maa ngi wax euh, jigéen ji surtout nañu muñ parce que yaakaar naa lépp muñ bi mooy base bi ndax àdduna dara yàggul lépp ci nettali rek lay mujj. kon bu ñu muñee rek ndax fii yàlla daf ñu fee wàcce comme tonton ni mu ko doon waxee ñu koy nuyu de passage yàlla daf ñu fee wàcce pour ñu jaamu ko pour ñu sonn wàcce wuñ fi pour ñuy ne daf suñu bànneex di def lu ñu neex déedéet daf ñu fee wàcce pour ñuy jànkonteel ay coono ay difficulté dañoo war di muñ di di di di gën a sant yàlla suñu borom di bàyyi xel tamit aussi xam ne say muñ la yàlla mooy boole ay nit Euh, lu ku mu boole tey ëllëg mën na la tàqale ak moom ëllëg mu boole la ak ak keneen yàlla lépp mooy boole nit ñi te lépp bokk wërsëg la rek di souhaité aussi de passage sama benn tata boo xamante ne le du suba mooy anniversaire am ma koy ñaanal gudd fan ak wér-gi-yaram sama ma Mbayang Fall moom kenn la ci man madame Diop maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér mu dund ba fekkee njëriñu njabootam yàlla bàyyi ko suñu kanam ma ci nuy sama yaay aussi moom tamit saykat la muñ la ma koy ñaanal moom aussi gudd fan ak wér ak samay sœur maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di kontaan ñëpp di leen jox di daje beneen di jaajëfal aussi suñu tonton bi nga xamante ci disponibilité mu bañ a nekk dernière émission ak ñun yàlla muy muy yee nekk lu bëri ñu ko yàgg di def incha allah kontaan nañ ci moom bu baax. daal doo wax ak kii nga xam ni moom lañ jàkkaarloo muy jóobeen bi daal doo ko sant doo ko gërëm ah da ñoom. kon baax na ba tax na ñuy amaat kontaan bu baax a baax rek di santaat yàlla bu baax a baax di santaat yàlla santaat yàlla bu baax a baax ndax defe naa ne jaam bu nekk rek war ngay sant yàlla ba tax na bu ñu tegee fii nii du suñu jàmbaar du suñu mën a wax du suñu dara xëy na ndogalu yàlla suñu borom moo tax ñu toog fii rek di waxtaan ak nit ñi te lépp loo xam ne wax nañ ko fi rek yàlla na ko yàlla dugal ci xel yi ñuy soññaat suñu mbokku jigéen ñi di leen wax góor góorgóorlu leen sëy leen nañu sëy te yàlla tax ku ci nekk ak ku ci nekkul lekk moom nga bëgg ba tax na sëy mooy devoiru jigéen sëy la jigéen moom mais góor ñi tamit nañu jàppale jigéen ñi te xam ne jigéen dafa nekk loo xam ne lu doy waar la jigéen dafa nekk koo xam ne il faut nga koy muñal di ko comprendre suñu yaay yi nekk ci kër yi tamit na ngeen ñu comprendre te muñal ñu bu baax a baax a baax waaye nag maa ngi wax sama mbokku jigéen ñi ñu gën a góorlu ci xale yi nañu góorgóorlu si xale yi bi bëri na doy na waar nañu taxaw ci suñu doom yi bu baax a baax ku ci nekk sa sëy defe naa bu illaaxiraa moom mooy nekk or bu ñu lay takkal sa baat te am na ñoo xam ne dinañ ci bari la lool waaye am na ñoo xam ne sama classe gii duñ ci am sax seen bu sew kon yàlla ñu yàlla <laughs> defal jàmm rek sutural bu baax a baax a baax waaye kenn du Babacar mi nga xam ne moo nekk ci technique bi moom tamit waaye tonton Matar kenn du moom may ziyaare waa nouvelle sama waa koñ maa leen di ziyaare bu baax tata awa maa ngi lay bu baax ma maam Marème lu tax doo ñu tudd awa maa ngi koy ziyaare bu a Matam ma kenn waa Mbarom waa Dakaj maa ngi ziar ñëpp waa Ngidi la képp koo xamante ne yaa ngi nekk Louga ak li àdduna rek maa ngi lay ziar di la ñaanal jàmm di ko saako ci yow di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla nañu yàlla sutural yàlla ñu yàlla may jàmm musal ñu ci pexem na musal ñu ci seytaane ci barke alxuraanu karim ma leen di jox rendez-vous dimanche 15h30 ci Leral TV Leral point net émission aada ak cosaan tonton Ngari nekk leen ci jàmm ba dimanche incha allah merci beaucoup.